internet Kaolack 86 kilo ceinture bleu Petit ke dugu sentur rus minjap petimbalka Petit rus ke dugu Badara internet sentur bulu Kaolack Grand Arona Diouf ñu ngi lay bëgg Marfa Fako Badara internet bu le internet daan na Petit Mbarka tey Mbine Diap le phénomène Aliou Faye borom baa ngi noonu de tey Mbine Diap waaw waaw bari baa ngi noonu tey waay